sujuuda alayhi walakinahu yukrahu amduhu. Very good. So that's what we maanaam mooy ku biiral qudut eh, warula sujud Ehm, maanaa daf la waxoon ne soo biiralee foo war a yellu walla nga yellu foo war a biiral biiral mooy wax ca kaw yellu mooy wax ca suuf ku def benn ci yooyu sujjoot daf la war mu bañ na nga foog ne lépp la wan la ne ñaan gi du xunoon nag bi que des koy yellu dañ koy jàng ci suuf waaye soo ko jàngee ci kaw moo xam nga juum walla nga tayi ko sujjoot waru ci waaye tayi ga nag dañ ko sib defe naa jàngoon nañ ko sànq ci ci anglais if a person uh, recites the Qunut audibly there is no prostration required but it is disliked to do that intentionally waxoon naa leen xunut mooy ñaan googu ñuy ñaan euh, before ñu euh, balaa ñoo rukkoo ah, ci ñaareelu rakkaay fajar bi ñaareelu rakkaay suba soo ko deful mën nga ko def gannaaw mën nga ko def gannaaw rukkoo su fekkee ne danga ko fàtte walla defuloo ko xunóot nag ñaareel buñ ko waxe ñaan gi ci wëtër la ñu bari di xalaat waaye xunóot fii mooy ñaan allahuma inna nastainuka wa nastagfiruka wa numinu bika wa natawakkalu aleyk gi nga xam ne moo nekk ci eh, da nga gis da am ñu wa nuthni aleyka alxayra kullahu wala nakfuruk wa natruku man yakfuruk wala wa naxdau laka wa naxlau wa natruku man yakfuruk yëpp ay version la ñaareelu partie bi allahuma iyaka nacbud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nascaa wa naxfid narju raxmataka wa naxaafu cadaabaka aljidd inna cadaabaka lilkaafirina mulxaq wala bilkaafirina mulxaq loolu soloo nañ xunoot ci saxaaba yu bari ku mel ne Seydina Omar Seydina Ali Seydina Abdullah ibnu Mas'ud te mooy Malik rahmatullahi alayh so So that's do in uh, So if a person recites the Qunut audibly, there is no prostration required. But it is disliked to do that intentionally. Lotek. Lotek. waaw mooy dem wala. wala Adja Njoba bàyyi Njoba mu jàng Njoba comme yow sa. gisu la yaa ngi gis léegi. waaw maa ngi gis léegi. Mhm. waman za zaada su surata. Mhm. fir fir rakaati fir rak aata rakatayni laa jiira jiirati jiiratayni fala sujud sujuda alay alayhi good baax na ne ko baax na mm. euh, <coughs> wax ne koo xam ne dafa euh, euh, dafa dolli saar ci ñaari rakkaa yu mujj yi xam ñaari rakkaa yu mujj yi fatiha rek lañ ci war a jàng ku ci juum wala eh, nga dolli ci saar nee na waru ca wa man zaada suurata fi rakaatayni al axiratayni fala sujuda if a person adds a, a surah last two raka'ah there is no prostration owed lu tax ndax jàng nañ ci xadis ne yonentu sallallahu julli na tisbaar jàng ci ñaari rakka yu njëkk yi rakka bu nekk lu tollook fanweeri aaya ci ñaari rakka yu mujj yi rakka bu nekk lu tollook fukki aaya ak juróom noonu ci xadis na yonente sallallahu alayhi wasallam daan na ko def ñëw na ci xadis tamit ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam jàng na ci tàkkusaan daan na jàng ci tàkkusaan maanaam ci même xadis bi ñaari rakka yu njëkk yi lu tolloog fukki aaya ak juróom ñaari rakka yu mujj yi genn wàllu loolu hmm? waaye loolu tegtal la ci waram xam-xam yi ne daanul jàng ci ñaari rakka yu mujj ci tàkkusaan lu dul fatiha naka noonu tamit ci tisbaar ndax lu tolloog fukki aaya ak juróom mën naa am njàngum fatiha moo yéex rek lu tolloog genn wàll ga mën na am njàngum fatiha ma bi dafa gën a gaaw fii rek ala kulli xaalin ku yokk saar ci ñaari rakaa yu mujj yi doo ko sujootal eh, ku yokk saar ci ñaari rakaa yu mujj yi doo ko doo ko sujootal ndax xadis ji ma tudd mu ngi ci Ahmad ak Muslim yëpp ci xadis Seydina Abu Saïd al-Xudri radiyallahu anhu eh, so based on the dalil we have from the prophet sallallahu alaihi wasallam if one adds a surah in the last two rak'ah which are supposed to have fatiha only one will not prostrate one will not do any prostration meaning that's not considered as increase hmm? that's not considered as increase boo ñaari boo saar ci rakka yu njëkk yi sujjoot dana war waaye boo yokkee saar ci rakka yu sujjoot du war leer na de ana Fatima Ibrahima read Fatima Ibrahim are Fatima Ibrahim readal li Fatima Ibrahim Samia bismillah sorry fan la sorry fan la that means you're not here waman samia waman samia zikra muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sallam wa huwa fi salati salla alayhi la shay'a alayhi sawa'un kana sawa'un sawa'an sawa'un mhm. ba sawa'un baax na sawa sawa'an baax na mhm. mhm. kaana saahiyan aw aamidan aw qaa'iman aw jaalisan yes masque bi niñ commencé baaxul yow li nga liir baax na waaye ki doon maas moo maas moo maas lu baaxul sawa'un la wala bind wala very good kay fii dafa wax ne képp kuy julli dégg wa man samia ku dégg na dikra muhammadin tudd tudd yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam woowa fi salaati mi ngi ci julli fa salla alayhi mu ne sallallahu julli ci moom fala shaya alayhi dara waru dangay ngay julli ba ci kanam nga dégg ku tudd yonentu sallallahu alayhi wa sallam benn da nga koo miin foo ko déggee wax sallallahu alayhi te loolu lu baax la ndax yonent sallallahu alayhi wa wax na ne ki gëna a nay ci jaam ñi mooy ki dégg sama tur te julliwul ci man alayhi salaatu wassalaam yow nag bi nga ko déggee automatiquement rek nga julli ci moom wala sax yaa ko tey maanaam xam nga ne yaa ngi julli waaye nga tey fàttewuloo nga julli ci moom moo xam da toog wala danga taxaw nee na dara waru ca maanaam du waral sujjoot wa man samia ku dégg na mu dikra muhammadin tudd turu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa fa salla mu julli ci moom fala shay'a alayhi dara waru ko sawaun moo xam kaana dafa nekk saahiyan di aji juum dafa fàtte aw amidan wala moo wax ko tey aw qaiman wala mu taxaw jaalisan wala mu yaay ji toog dara waru ko ci let me let me just explain it clear I mean I'm sorry mal ma expliquer ko ci anglais comme ça duñ ci Here it says if one hears the name of Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam during the prayer and sends prayers upon him, he owes nothing. This is whether he did uh, he did it out of forgetfulness or intentionally, while standing or sitting. Though nothing is owed if one says sallallahu alayhi wasallam when he hears the Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam's name mentioned when he is in prayer. Whether he did say sallallahu alayhi wasallam you know, forgetfully or he intended. Mm-hmm. You know, generally mm, people do it even forgetfully because it becomes automatic. It's automatic. Mm-hmm. Why? Because they have the habit mm-hmm. to send salawat upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And when Allah tabaraka wa ta'ala says, Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabiyya alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, he doesn't say whether you are in prayer or no. And the Holy Prophet وسلم, says that the most stingy person is one who hears my name and does not send salawat upon me. All right. So that's yeah. why. Um, I have a question. Yes. If this kind of applies in a sense, um, if you're praying and um, you sneeze in the middle of your prayer, you know, usually you're supposed to say you know, alhamdulillah, alamin. Um, but if you're in the middle of prayer, do you still say that as you sneeze or do you just continue with your prayer? Yeah, you don't I have to say, but in case you say it, alhamdulillah is a Quranic word. It will, we will even go through it, inshallah. You will find it in, in, it's in the chapter itself. We'll, we'll, we'll, we'll, we'll go through it in details. But, but, but, it's like you read my mind. <laughs> Mm. <laughs> yeah, I was just about to ask that question. <laughs> because I'll yeah, it, it, the situation sounds alike. Yeah, you just read my mind. Mm-hmm. okay, so it's, you're, you're going re- you're going to read it in this chapter. He's going to tell you that if such thing happens, if you sin is, you are not supposed to say Alhamdulillah. Okay. Mm and the one who hears uh, you're not supposed to say alhamdulillah and the one who hears you okay. Eh, is not supposed to say yarhamukallah when he is but if you say alhamdulillah he says nothing is owed mm. you know so the alhamdulillah is uh, recommended when you are outside salah but if by mistake for example or you said it because the word alhamdulillah is Quranic word then there is nothing owed. We will we'll, we will we will we will see that very case inshallah in the, inside the. Okay. ayca loo teg Fatimatu. wa man qara'a suuratayni fa akthar fi rak'atin waahidatin aw xaraja min suuratin ila suura aw raka'a qabla tamaami suura falaa shay'a alayhi fi jami'i dhalik. wa man qaraa ku jàng suuratayni ñaari saar fa akthara mbaa ëpp ñaari saar fi rakaatin waxidatin ci benn rakaa aw wala sa xaraje dafa génn min suuratin ci saar te saar wa matut ila suuratin jëm ca weneen saar aw wala sax rakaa dafa rukoo far qabla tamaami suurati njëkk saar wi mat nee na fala shay kooku dara waru ko jamii dalika ci mboole seen fi jamii dalika ci loolu lépp ki dafay julli bi mu jàngee faate woo pare mu jàng lexlaas ba mu mu jàng suratu al falaq ñaata saar la jàng ci benn rakkaa bi ah? ñaar la ñaar déedéet bu ñuy wax saar baqara fatiha taxul ñuy wax waaw déggee ñu ne saar ci julli rek fatiha forget about fatiha we don't call fatiha a sura okay so because what <clears throat> if you see fatiha as a sura then It doesn't. It's is a fard, mm is a sunnah. whenever we say surah in salah, we're talking about mm-hmm. uh, something other than Fatiha. So oh, okay. So here he recites Falaq, then he re he um, How many surahs? Two. that's reciting two surah. jàng um, na amin jàng na lexlaas jàng fa am na ñaari saar fa aksara mbaalu ko ëpp wala fa aksara balu ko ëpp mooy mhm. mu yokk ci par exemple xul a'uuzu bi rabbin naas jàng na ñaari saar yokk ci xul a'uuzu bi rabbin par exemple muy ñetti saar fa aksara mhm. balu ko ëpp mën naa ba fukki saar kii dafa ja kabar rek bi mu ba noppi jàng suratul a'la pare jàng Gaasiya pare jàng fajar jàng balad jëm naas jàng na ñaari saar balu ko ëpp fii rakaatin waaxidatin ci benn raka aw xaraja wala sa dafa génne min suuratin ci sabbih isma rabbikal a'la te jeexut ila suuratin jëm ci qul wala waxat mm-hmm. yaa ngi ne sabbih isma rabbikal a'la alladi xalaqa fa sawwa walladi qaddara fa hada walladi axraja al mar'a fa ja'alahu guthaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma shaa allahu innahu ya'lamu al jahra wa ma yaxfa qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad aw rakaa wala sax dafa rukkoo qabla tamaami suurati ngay jàng suuratu sabbih isma rabbika al-a'laa ba ci sa nuquree ko falaa tansaa illaa maa shaa allahu innahu ya'lamu al-jahra wa maa yaxfaa mu rukkoo te saar ba matut mu ne yi kaa yi yëpp falaa shay alay dara nekku ca falaa shay alay dara waru ko fii jamii dalika ci yolle yëpp bañ nga foog ne ku bàyyi saar danga war a sujjoot nga foog ne ku yokk saar tamit danga war a sujjoot ku waroon a jàng benn saar nga jàng ñaar mbaalu ko ëpp wala ngay jàng ba ci kanam nga gàkk nga wala ngay jàng ba ci kanam nga gàkk nga dugg ci beneen saar wala sax gàkkoo waaye yaa bëgg dem ci beneen saar nee na loolu yëpp daara waru ci hmm? nee na loolu yëpp daara waru ci Okay, so that's what it. Uh, uh, nothing is owed if one recites two or more surahs in one rak'ah. Begin one surah and then went to another surah. Bowed before completing the surah. yii yëpp dara waru ci yow recite suratul ikhlas after suratul ikhlas you recite suratul Falaq and then Surah Nas, nothing is out. Or you're reciting Surah Amma Yatasaalun and in the uh, uh then you jump from Amma to another surah without even finishing Amma. Or by the time you finish Surah Amma Yatasaalun, you decided you decide to make ruku' to go to to Ba'a. He said nothing is out, meaning you're not supposed to make sujood for any of these cases. Salimata, Salimata, you can read the Arabic? Um, where do want to start? Yeah. Okay. Woman, no, I don't think. I mean, I can try. But... okay. How about uh, Ndeye Can you read this? Ndeye Fatou, mën nga wa man ashaara oh, mën naa try sama problème mooy dama parce que téléphone bi laa connecté dafa dafa tuuti ok so don't worry let's mën naa bàyyil bàyyil moom fi salaatihi fi salaatihi mm-hmm. ba uh, uh. Bidadi. Biyadihi. Biyadihi. gis. Mm-hmm. Biyadihi aw. aw raas. aw rasihi. aw rasihi. rasihi. xoola. fala. aw rasihi. fala. Mm-hmm. Mm-hmm. shay. fala chadd fala chey a fala mhm. chey very good very good waman ashaara ku junji na junji mooy def geste fi salaatihi ci julleem biyadihi ak loxom aw rasihi mbaa mu def geste ak boppam ne na fala shay alayhi dara waru ko dara waru ko nag mooy sujjóot waru ca waaye bëgguñu nag kuy julli di yëkkati loxoom di def benn gest lu dul mu nekk nécessité par exemple nit ñëw taxaw nga ne nga def ko geste ne ko mu dugg ci biir yaa ngi dégg wala nit wax la loo xam ne ni farata la boo xam ne mënoo ko bañ a tontu nga yëngal sa bopp pour mu xam ne déedéet nga wax wala nga yëngal ko pour mu xam ne waaw nga wax nee loolu ki ko def sujjóot waru ca hmm? if during the prayer one motions with his hand or head nothing is owed someone is talking to you, you make a gesture with your hand to say, mm, pass by or enter. Or you do the gesture or the motion with your hand to say yes or no. No sujood is owed. Hmm? Hmm. No sujood is owed. Yes. When you say nothing is owed, that means no sujood is owed. well, sujud is odd, but it's, he's talking about the sujud. But mm-hmm. if one does not do any gesture unless it is necessary, I mean necessary, mm-hmm. then don't do the gesture. Because not owing sujud doesn't mean not sinning, mm-hmm. doesn't mean not doing something you are not supposed to do. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. because kiy julli mi ngi mi ngi ci kanam yàlla am na lu ko doy am na lu ko doy am na ñoo am na koo xam ne kër gaa ngi lakk ba safara si wër ko ñu naan ko yaa ali yaa ali safara si safara si yëgu ci yëgu ci ma nga sujjoor rek sujjoor bu yàgg ba mu pare ñu laaj ko nekk ko yow bu ñu lay woo la safara si xanaa yëguloo safara si ak li yuuxu ak tàngaay bi wër mu ne safara jahannama moo fees sama ba mënuma woon xalaat safara si àdduna mu ne lan moo fees si xolam he was so busy with uh, thinking the hellfire of hereafter too busy with that hellfire that punishment to be able to feel the fire of this dunya maanaam xolam ni mu attaché woon ci yàlla ni mu doon xalaatee mbugalum yàlla ak merum yàlla ak ni mu tiitee ci loolu tax na mënta xalaat mënta fiil safara si ko wër xam nga kooku du def du de kooku du wax loxoom nit kuy fëgg dugal de ndax du ko yëg hmm? ndax du ko yëg kooku boobu nag lañ soxla. fekkee nit dafa taamu habitude bu bon di xuus euh, di xoos euh, put bi mu koy def mu def ko si juddi da ko bàyyi daf koy bàyyi daf ko defee si juddi du oo na tey fekk jëf daal su fekkee bariwut waaye su fekkee julli gi yëpp mi ngi def loolu jëf ji dafay bari jëf ju bariwul du lor mhm. du lor mooy du waral sujjóot du yàq julli jàngoon nañ ko ci leçon yu njëkk waaye bu bëree nag te fekk euh, bu bëree dafay yàq julli te dafay wane ne borom waaw mooy ka loolu am na ku yon yonentu gis na kuy euh, julli di fooye ci yaramam moo xam sikki moom la woon wala leneen la woon mu ne ah kii dee toroxlu wut ndax su toroxlu woon cëram yi dinañ toroxlu maanaam ku teew ci kanam yàlla xam ci kanam kan nga teew di nga tal leneen lu dul wokkatu mbaa xasanu xam nga ki nekk ci kanam gaynde mu leer ko ne gaynde gi dafay nelaw te bu gaynde gi mën na koo lekk kooku lu mu saf xasanu xasanu mën na am lu xasanu te gaynde nag du dara ci kanam yàlla gaynde du dara ci kanam yàlla waaw du du du dara ci gaynde waaye milliards yi univers yi yàlla am yëpp duñ dara ci kanam aha ah, ce loo teg ayaa njooba yaa doon liir fatimatu fatimatu liiral ma oh, oh ok kii ma leer faatu ok acca nañ jëm ci ajaa njóoba wa man karrara njóoba ayu hiya bi dégguñu la de wa man karrara Fatou Kiné demal bokk dafa mel ni Njóoba dégguñu. ah bi laa élargir woon mënuma woon gis ok. oh I eh, <laughs> bi jaxasoo na de gisatoo. gisatoo ok ok ma raadu di karrara waman karraral mm-hmm. fatihata mm-hmm. sahiyan mm-hmm. sajada baada salaami baada salaami wa in kaana wa in kaana aamidan fazahiru very good nee na karara ku baamtu maanaam répété tari benn ñaari yoon baalu ko ëpp waman karara ku répété alfatihata suratul fatiha saahiyan ci jamaj maanaam dafa fàtte dafa juum tari fatiha tariwaat ko kooku nuñ ko réparé mu ne sajada dafay sujjoot baada salaam yi gannaaw bu mu ndax yokk na ci julli ku juum nga ñuy wax waa bu ko tayee nag mu ne wa in kaana aamidan su fekkee moo ko tay fa zaahiru li feeñ al butlaanu mooy yàqu julli ga lu tax parce que dafa tay yokk ci ponk moo tax mu ne lii feeñ mooy yàquk julli ga waaye li ñu sukkandiku nag ci ngir mi mooy julli ga du yàqu nag ndax danañ jàng ne képp koo xam ne fàttaliku nga ne danga waroon a yellu ba pare nga biral wala danga waroon a biral ba pare nga yellu c'est-à-dire da nga waroon a jàng fatiha ca kaw nga jàng ko ci suuf nga fàttaliku ko balaa ngaaru ko dangay ngay bàmp jàng ba loolu dinañ ko jàng mooy masala bii di ñëw donc li feeñ mooy ja julli dafa yàqu ndax yokk na ponk waaye li wér mooy julli ga yàquwul maanaam ki tey répété fatiha li wér liñ sukkandiku mooy julli yàqu yàquwul wala yàqu na. moom li wax mooy li feeñ mooy julli gi yàqu na li feeñ boo ko fi boo ko déggee rek mooy am na leneen lu lu leneen lu lu bokkul ak li feeñ maanaam apparemment mm. apparemment julli gi yàqu na lu tax parce que yokk nga ponk. Mm. mooy wane ne am na ñu wax loolu waaye li ñu sukkandiku nag maanaam li wér mooy julli gi yàquwut. waaw loolu man maa leen ko ci yokkal. ci ngir mi sax nag la wax waxuma ci yeneen ngir. ndax mm-hmm. ba waxin wi rek moo lay wanne xam nga waxul ne bu fekkoon ne dafa ne. Euh, d'office. bu fekkoon ne dafa ne wa in kaana aamidan batalat salaatuhu su fekkee moo ko tey julli ga yàqu na xam nga bokkul ak wa in kaana aamidan fa zaahirul butlaan mm-hmm. su fekkee moo ko tey li feeñ mooy yàquk julli gi maanaam mu lay junj ne du benn wax moo am ci madhab bi Hmm. li feeñ mooy yàquk julli gi waaye li wér liñ sukkandiku nag mooy julli gi wér na yàquwut hmm. li wér nag mooy julli gi yàquwul if one repeats the fatiha out of forgetfulness he prostrates after the salam if it was done uh, I mean that that's like if it was done forgetfully. But if it was done intentionally, then what is apparent, you see, what is apparent is that the prayer is invalid. That is what is apparent. That means there's a an opinion that the prayer is invalid because one has added an obligation. Mm-hmm. But what is correct is that the salah is not invalid. That is stronger opinion that the salah is not invalid. Because adding an obligation that is qawli is different from adding an obligation that is fi'li. You know, if you add an obligation that is fi'li, meaning if you add an action such as a sujood then mm. I mean and you have added in, in intentionally then the prayer dof is without any doubt is invalid but if what you have added is an obligation but it is not an action it is a speech it is something to say it is like that and that is Surah Al-Fatiha then there's a difference so he said the apparent he didn't say his salah is invalid he, he said the apparent فَظَاهِرُ فَظَاهِرُ الْبُطْلَانِ What is apparent is that the prayer is invalid. He's indicating to you that there is another opinion, and that one is stronger. I don't know if I'm making sense. Am I making sense here? Huh? Yeah. Yeah. A, a lot of it. <laughs> I'm making a lot of sense. yéen américain yi dañuy wax a lot of. <laughs> a lot. a lot. Yeah. a lot of sense. and I'm saying a lot of sense. aha wa man anamu wa in kana aamidan fa zahiru lbutlaanu okay Fatima Ibrahim next one Fatima Ibrahim wa man tadakkara suurata wa man tadakkara suurata baada in inaa'i ba'dan ba'dan hinaa'ihi ba'dan hinaa'ihi ila rukuu'i fala yarji'u ilayha very good very good no no no let's no no no that's the case let's deal with that case first secures ma ne nañu firi boobu ba pare it's a separate it's two different things wa man tadakkara ku fàttaliku as suurata ne moo man de jànguma su saar kañ baadan xinaa'ihi gannaaw lunkaloom gannaaw bu mu lunkoo mooy bi mu sëggee ila rukuuci jëm ci yar yarji'u du dellu ilayha jëm ca saar wa dama jàng fatiha fàtte jàng saar bi may rukkoo ba ci halfway of my rukkoo ma ne muyen jànguma saar di bu dee wolof dafay siggewaat rek jàng saar mu ne déedéet bi nga jëlee initiative jëm ci rukkoo dem ba rukoo ba xaaj kenn du jógee ci farata di delluwaat ci sunna yeggalil farata ab rukoo ba rek bàyyil saar wa dégg nga wax ci lan mooy xaaju mooy man dem naa par exemple sëgg naa dem bay bëgg ba jege ba sëgg ba nga xam ne maa ngi bëgg a jàpp sama wóom yi wala jàpp naa ko ba oh. noppi wala jàppaguma ko Oh, maanaam jël naa initiative ruko maa ngi lunk jëm ci sujjoot bi am leaning towards ruko once maa ngi lean towards ruko rek bu ma sigiwaat baadan xinaa ihi gannaaw lunkum lunk wala fi yu xóot laa leen di wax nag ah, sax yéen a déggul wala <laughs> <laughs> xóotul sax Eh? parce que jàng saar sunna la rukoor farata la comme yaa ngi eh, commencé nga rukoor bi rek bul hmm? du noonu du whoever remembers the surah after bowing in the rukoor must not return to recite it léegi kooku nan la koy how what does he do nan lay how how how is going to fix this fàtte na saar ba ko eh, ba rukoo soo ko fàttaliku léegi nan lay saar woowu mu fàtte nan la koy fixé su paree mooy bu pare wala balaa moo sëlmal balaa moo sëlmal balaa parce que dafa wàññi ci julli gi dafa wàññi ci te lim wàññi ci saar la saar sunna mu akkada very good very good very good so this person will perform sujud qabli because he decreased he reduced from the prior And what he reduced was a sunnah muakkada, strong sunnah, which is a surah. Mm-hmm. nee na wa man tadakkara ah accende du man maay ana Fatima Ibrahim continue Fatima wa man tadakkara wa man tadakkara mm-hmm. sirra awil jahra uh-huh. qabla أعاد أعاد القراءة فإن كان ذلك في السورة في السورة وحدها أعادها ولا سجود عليه في الفاتحة وإن كان أعادها وسجد بعد السلام very good very good c'est bon wa man tadhakkara ku fàttaliku assirra jàng ndànk dafa waroona a jàng ndànk jàng ca kaw mu fàttaliku ne man de ci kaw laa jàng te ndànk laa waroon jàng kañ la ko fàttaliku qabla rukuuci balaa moo rukoo lu muy def mu ne aada al na baamtu jàng ma ndem fatiha la ndem saar la ndem fatiha ak saar la awil jahra wala dafa waroon a jàng ca kaw mu fàtte jàng ci suuf bi mu koy fàttaliku rukoowagul lu muy def aadal qiraata na répété jàng ma moo xam fatiha kese la walla fatiha ak saar la leer na damay julli tisbaar jàng ca kaw fatiha ca kaw saar ca kaw bi ma demee bay bëgg rukoo rukooguma de ma dem bay bëggaru ko dama pare saar rek ne eh man ci kaw laa jàng di te tisbaar laay julle damay répété li ma doon jàngoon ci kaw yëpp dama koy répété waat jàng ko ci suuf xaw ma sax ndax waat la ñuy wax wala répété rek parce que répété moom waat la <laughs> maanaam dama koy baamtu dama koy jàngaat moo xam biral la ci balaasu yellu wala yellu ci balaasu biral yàllu ci palaasu biral mooy timis laay julli ma jàng ndànk ci rakka bu njëkk bi ba pare bëgg a xel dem ci rukkoo gu ma de dama bëgg a jàng ca kaw hmm? leer na <laughs> <laughs> <laughs> salamata maybe for NATO is not very clear huh? I say maybe for NATO, NATO is not clear. It's not very clear for NATO, sister NATO. Mm. What I said is if one remembers the silent or audible recitations before the ruku', one repeats the recitation. Meaning I was supposed to recite audibly. Mm-hmm. Mm. but I recited silently. And I remember that before I bow for ruku', then I will mm-hmm. repeat this, the recitation. But this this doesn't apply to women, right? Because no, no, no, mm-hmm. uh, not necessarily to women. No, sorry. Okay. Not necessarily to women. Or I was recite. I mean, or like vice versa. Now, okay. mm-hmm. now that is the general that is the how do you call it until here mm-hmm. we are on the same page we are on the same page when it comes to repeating recitation whether it is surah or Fatiha or both of them we have no problem mm-hmm. now there is detail fa in kana dhalika su fekkee loolu fi surati ci wala waxdahaa saar kopp képp aadahaa na baamtu saar wa wala sujooda alayhi sujood waaye wala sujooda te de sujooda alayhi di ko war su fekkee li ma waroon a jàng ci kaw te jàng ko ci suuf saar la dama koy jàng damay baamtu saar wa rek ci kaw su fekkee li ma waroon a jàng ci suuf jàng ko ca kaw saar la damay répété waat damay répété saar bi rek ko ci suuf bu ma paree lu may def damay sujjoot mu ne déedéet gannaaw saar kottu la doo sujjoot wa in kaana fil fatihati su fekkee ne ci fatiha la nag aadaha na répété fatiha bi na bamtu fatiha sujjoot baada salaami gannaaw bu mu parce que fatiha ponk la su fekkee ne ma fàtte jàng fatiha ca kaw te waroon ko jàng ci suuf bi ma koy fàttaliku rukoowuma damay répété fatiha bi jàng ko dama ko waroon a jàngee ci suuf su dee contraire bi it noonu su ma paree ma sujjóot baada salaam ndax yokk naa ci julli hmm, ndax waxoon na ñu ne ku bamtu fatiha te juum da ngay sujjóot baada salaam fii jam bamtu nga fatiha duwul ne da ngaa juum jàng ko waaye da ngaa juum jàng ko noo ko warewuloon jànge noo ko waruloon jànge moo tax ngay sujood baada salaam da juum jàng ko noo ko waruloon jànge moo tax ngay sujood ah baada salaam leer na ah He told us mm-hmm. if one remembers the silent or audible recitations before the ruku', he repeats the recitation. But if that was only in the surah, then he repeats the surah, and there is no prostration owed. If that was in the Fatiha, then he repeats it and prostrates after the salam. Now, in both cases, we're talking about something that happened and we remembered before rukoa hmm? ñu ngi wax loo xam ne mi ngi xew avant ñuy rukoa léegi nag wa in faata ana ku may jàngal Adja Njóoba wa in faata uh, wa in faata mhm. faata mhm. mhm. bi rukuuci qabla salaami li tarki sirri bacda salaami siwaaun kaana minal faatihati wali tarki ah, ok ga sawaun kaana minal faatihati awis rati mm-hmm. wax daxaa very good very good nee na <clears throat> wa in faata su fekkee baamtu nag dafa faat soo nit bu dee ñu ne dafa faatu maanaam opportunité baamtu ga dafa weesu comment lu tax bi rukkoo yi ci rukkoo mooy ba ma comme rukkoo naa dootuma jogati naan damay baamtu yàllu wala baamtu ndax avant may rukkoo laay baamtu su fekkee ruko naa nag dootuma baamtu su boobaa nag solution bi lan la mu ne sajada dafay sujjoot li tarkil jahri ngir bàyyi gi mu bàyyi jàng ca kaw lan lay sujjoot qabla salaami su fekkee ne erreur bi mooy dama waroon a jàng ca kaw te jàng ca suuf bàyyi gi ma bàyyi jàng ci kaw mel na ni wàññi naa ci julli gi damay sujjoot tarki sirri dafay sujjoot ngir bàyyi gi mu bàyyi jàng ca suuf te jàng ca kaw mel na ni yokk na ci julli gi lu muy sujjoot baada salaam yi gannaaw salmal sawaun moo xam la mu waroon a jàng ca kaw te jàng ko ci suuf mbaa la mu waroon jàng ca suuf te jàng ko ca kaw kaana dafa nekk min al fatiha ci fatiha awi suura wala suura waxdaha moom kot su fekkee ne dama waroon a jàng ca kaw jàng ca suuf damay sujjóot qabla moo xam fatiha ak saar la wala fatiha kese la wala wala suura saar kese la su fekkee ne dama waroon a jàng ca suuf te jàng ca kaw yokku naa damay sujjóot baada salaam moo xam fatiha képp la wala fatiha ak saar la wala saar képp xaw ma leer naam déet hmm? soo bu fekkee ne nga waroon jàng ci suuf dangaa wàññi mu ngëkk bu fekkee da nga waroon waa jàng ci suuf nga jàng ca kaw kaw moo gën a kaw moo gën a niru yokk wàññ eh, suuf suuf mooy ne gën a niru wàññi boo jàngee ci suuf fekk ca kaw nga waroon jàng danga ngaa soo jàngee ca kaw te fekk ca suuf nga waroon jàng danga boo jàngee ca kaw fekk ca suuf nga waroon jàng da yokk am confidence su fekkee da ngaa jàng ci kaw fekk ci suuf nga war a jàng da ngaa yokk. Okay, so let's say it in English. If that was only in a surah, then no, no, no, no, no. You say, if one remembers the silent or audible recitation before the ruku'ah, he repeats the recitation. If that was only in the surah, then he repeats the surah, and there is no prostration out. If that was in the Fatiha, then he repeats it in, and, and prostrates after the salam. This is this case is only if one remembers before ruku and repeat uh, and fix what he had to fix. But if he lose, if he loses, if they lose the opportunity to repeat it, because he went into ruku, then he would prostrate. before the salam for leaving the audible recitation, and after the silent recitation. The above would be the ruling whether it was Fatiha or the surah alone, the so your, your is before salam for leaving the audible recitation parce que boo wàññ boo bàyyee ci kaw ci suuf wàññi nga after the salam for leaving the silent recitation boo bàyyee jàng ci suuf jàng ca kaw yokku nga kaw yokku suuf wàññi la maanaam kaw ci barabu suuf yokkula suuf ci barabu kaw wàññi la hmm? am déet this is not the case here It's not the teeth. No. Oh. No, because. It's not. Yeah. Oh, okay, go ahead. Yes, go ahead. Okay. Kuyel, kuyel, no, yeah, it's, it's, it's, it's yeah, it's the case. It's the same case, but here, but here it's something that I mean, it's the same same thing here. But here, the only difference here is talking about what happens before or after. But it's the same case. Okay, go ahead. After uh, uh, waaw non non non non non laajteel question bi ndax dina dina jëriñ man naa am man maa comprendre li nga bëgg a laajte waxaat ko. ku yellu ci barabu biral dafa wàññi. day hmm. sujjoot baax da ci barabu day sujjoot qabla day sujjoot qabla. Hmm. ok ku ku ku yellu ci barabu biral. biyal ci barabu biral dafa wàññi. yes ku wàññi da sujjoot xabla. da sujjoot xabla sorry. Mm-hmm. ku biral ci barabu yeelu dafa yokku. Mm-hmm. ku yokk dafay sujjoot baax da day sujjoot baax baax that's the case here. that's the case here. kaw yellu mooy wax ndànk. yellu mooy wax ndànk fu ñu war a waxee ca kaw boo waxee ndànk. waaw ku booba kooku dafa wàññiku fu ñu war a waxee ca ci fu ñu war waxee ndànk boo ca waxee kaw ah bu ndaa ndaa ndaa ndaa ndaa ndaama boo ko njool da nga wàññi da nga yokk njool boo ko ñawalee ñawu ndaama da nga wàññi seetlu Hmm? ku nekk ca kaw boo ko wàccee ci suuf mel ku nekk ci suuf boo ko yóbboo ca kaw da ko yokk ci waxin ko ci waxin ci waxin bañ ndaama yi mere moo tax ma ne ci waxin damay jàngale rek waaye ndaama yi moom dégg naa ñu ne ndaama gu saf kenn du ko wéccee bu tooy <laughs> njool yi dañuy tooye naa may ñoo ko yore ok so insha allah ñu taxaw fii tey hada wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amin unless you guys have questions bu ngeen amee question ICFA Institute